dikkati na loo ci mën ci dégg it attention tribune yéen kaay nan attention ci yenn ci rapport ndax nag rapport yi nga xam ne sàkku nañ ñu publier ko ci juróomi at yee ñu génn yéen kaayub dee média bi ne ma sàkku te fuk président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la waaye nag la muy sàkku ca OFNAC OFNAC publier na ko ba nuppi ci juróomi rapport yi nga xam ne moom njiitum réew mi nee na ko duut baaraam nee nañ ko daal di génnee sénégalais yi daal di gis diggante 2022 ak 2023 képp dong la ñu publier gul waaye ca des yëpp publier nañ ko ko dajee naan kon en tout cas ne ñu nañu publier rapport corps de contrôle yi OFNAC moom commande bu njëkk ba daal dina koy ni yéet sénégalais yi niki démb daal dinay publier ay rapport ci rapport yooyee ñu gis ne personnalité publique yu bari mani la nee nañ leen ci duut baaraam libération yéeni kaay naan man la am ca université Amadou Matar Mbow ca jam ñaajo moom daanaka ab jaay doole la wala it séddoo alalu askan wi yéeni kaay bi naan man Marilise BTP mooy entreprise bu Adama Bictogo jaarale ko ca Touba matériaux entreprise bu laxat ka ASC bu ron yafet ay milliards la ñu daal di jël caxat-caxatee ko yàq ko seddoo ko ci anam woo xam ni jaarul yoon yéenekaay bi naan man tey laa lay xamal nag naka la société bii di Yildirim Holding nekk ca Turquie te nga xam ni it moom la nu jébbaloon marché ba fexee nag ba faaselu faaselu ngir nag dil bi gën a mën a dox gannaaw bi nga xam ne séddoo nañ marché bi ci anam woo xam ne jaarul yoon moom Marie-Lise BTP mii nga xam ne Adama Bictogo moo ko moom juróom benn fukki milliards of Africa ci anam woo xam ni scandale la daanaka te loolu lépp nag daal di lalu ci ndodduk état bu mu senegal ci koppar googee DSC bu ron yefe di na cay am fan weeri milliards ak benn bu teg ñaar fukki million ak ñeent rapport au rapport libération yéene kaay naan kon rapport yi ma la diggante CENTIF ak ARMP ña nga gas ba mu xóot daal di koy suul le témoin yéene kaay naan kon ci leneen ca of nag rapport 2019 2020 ak 2021 yi nga xam ne publié ko wane nañ kaw Diallo Mamour Diallo nag mën a nekk saasitémbe ci guddi goo xam ne bët setagul ci l'enquête ba nga xam ne of nag def na ko ci 94 yi waaye tam ci tuuma yi nga xam ne njiital Pastef teg na ko ci ndoddug Mamour Diallo loolu lépp nag daal di xam le ni Ousmane Sonko la mu doon wax dëgg la dossier ba nag ñu jébbal ko parquet ba waaye tam mu am ay daan yu diis yoo xam ne sàkk woon na ñu tegoon ko directeur ba woon bu impôt domaine ci réewum Sénégal waaye loolu mi diggante lanceur d'alerte yi ñi ñuy wooy ay influenceur waaye tam ña nga xam ne lu ñu wax du dëgg réew mi daal jaxasoo na lu waaye xamal moroomam ci lu bon yaa ngi koy génnee direct news naan maan en tout cas la ñu waxoon démb ci ne xalif général bu njabootu taal gi dañu ko teree dugg ci salon d'honneur bu aéroport international Blaise Diagne amut njaboot gi ci boppam daal dinañ koy weddi xam leen ni nag moom xalif général ba Thierno Bachirou Tall kenn musu koo teree dugg ci salon d'honneur bu aéroport Blaise Diagne te du dëgg ndax njaboot boppam ñoo ko weddil seen bopp libération yéeni kaay mel ni ku naan kon réew mi jaxasoo ki rapport waaye tam jaxasoo ak yorin woo xam ni mar day taali ca l'hôpital fan bi ay malade yoo xam ni AVC la ñu am am ay jafe-jafe ngir ñu téye leen ca l'hôpital ba fanweer ci ay lal képp dong la ñu ne moom lañ fa dese ngir mën faa interne ay malade docteur Serigne Abdoul Aziz Fall responsable bu unité soins intensifs xam le ni am nag service bu yees boo xam ne juróom ñetti at nii ñu ngi koy tabax ca biir l'hôpital ba waxtu woow yéen naan man ñi ngi ca xat ca xatee seenu am-am soo xoolee rapport yi nga xam ne bàyyeekoo na ci nag wane na ni ma ni la ay milliards yoo xam ne yu Sénégal la gars yi dëxën nañ ko seen gafak jaawale gafak sénégalais ak seenu gos l'observateur naan kon attention ci publication yi les rapports moom IG ay rapport am askan wi waruñ cee jot dafa am loi boo xam ne moo waruñ ëmb rapport IG yi am ñoo xam ne moom lañ ko war a jébbal te public bi bokk ci yéen kaay bi naan man attention yi ci rapport OFNAC yi ndax nag OFNAC wax ci ay njortu ger yoo xam ne xam am te mën na bañ a am contention léefa yéen kaay naan kon réew mi daal luwaay neex def moo fi am am na ñoo xam ne luwaa bi ci boppam moo leen tënk waaye nañu sàllar ñee luwaa noonu la ñu sàllar ñee of nag ba ci fanweer décembre 2021 ña waroon defi déclaration de patrimoine tollu woon nañ ci junni ñaari téeméer juróom fukk ak juróom benn te ci lim googee juróom-ñetti téeméer juróom fukk ak benn ña nga woon cim xëy ga taxoon ñu war a déclarer patrimoine 2014 ak tey ci ña nga xam ni war nañu def déclaration de patrimoine fanweer ak juróom ci téeméer boo jël lank nañu am na ci ñoo xam ni moom jël nañu fonction ba bàyyi musuñu déclaré téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay bataaxal daal dinañ leen koy yónnee ngir fàttali leen di da ngeen war a def déclaration de patrimoine fanweer ak juróom huissier ñoo fa fi yóbbu lettre ya waaye kenn ci ñoom mani la deful déclaration de patrimoine ndax dañ koo lànk ci 2021 yéene kaay bi ne ma fanweer ci ay bataaxal jébbal nañ ko njiitum réew mi jébbal ko ay ministre xamal leen ni nag ay nit yoo xam ne ci seeni autorité la ñu nekk lànk nañ wax seenu aw am-am ba tey France daal di xidéem moom leen fa ne ma novembre 2014 ak tey ñi nga xam ne déclaré nañ daal dinañ koy jël denc ko foo xam ne loxo yàqkat yeggu fa le quotidien le quotidien naan maan jàppal ne URD moom daal dinay bàyyi Benno Bokk Yaakaar fayal laaxu waxtu woow moom ndakaaru bu doon ak bato la daal dinay accosté ci bët gànnaaru réew mi di Nouakchott laas yéene kaay naan kon moom Nouakchott lalal na basang wala tapis rouge président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le soleil yéene kaay naan kon ca ngan la niki démb moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye séqu koog Mouhamed Ould Cheikh Cheikh El Ghazouani waxtaane nañ dossier yi nga xam ne lëkkale na senegal ak Mauritanie ndaw la toogal Mauritanie fii ci réewum Sénégal ne relation yi dëgëroon na waaye nganuk démb gi dey dina ko gën a dëgëral tribune yéen kaay naan kon ak lu mën a am yow président geesul caxat-caxatee suuf gi nga xam ne mi ngi ne xàll ci réewum Sénégal la nga xam ni moo des ca tefes ga ca jàmmalaay ña ngi koy saax-saaxee ci anam woo xam ne ñaaw na salte na ñay ronka suufu askan wi mel ni na kuy ak état bu réewum Sénégal moom sous bu Almadi xamle dëkk avril 2023 la ko xamle ba tey fouraas daal di xidéem tey la liggéey ya a jolli ci suuf soo xam ne nag saax-saaxee gi metti na jéggi na dayoo le point yéen kaay naan man tey laa xamal na kuy bugaan géy dani homme politique bu ànd ak rigueur acteur social bu amul yërmande waaye tam homme d'affaires bu ñu ràññee ci réew mi yéen kaay bi naan man tey laa lay xamle ak un grand sénégalais promoteur bu groupe de médias bi gën a rëy daanaka ci Afrique de l'Ouest yorit parti politique daanaka bi gën a am doole ci Sénégal bugaan géy dani nekk ab humaniste hors pair am œuvre deesu ko naatable jël ci peggam lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama di daw ci ginnaaw askan wi nga xam ne dañoo néew doole bàyyeele boppam ñu amul fu nu wéeru ak sinistré yi discours bu révolutionnaire tax mu doon jeune sénégalais bi réew mi bëgg Walf Quotidien naan kon réew mi di Sénégal diggante reddition des comptes ak bëccëg boo xam ne waxtaan national la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi ci tànku président Macky Sall réew mi Quotidien naan maan réew mi dee ku yebul waa ji ab xaritam bu am contrat de football ñu war caa waxtaane la xoj ba mu daal di faatu daal di koy abandonné ci mbedd mi bëggoon koo jiñ nag ak mandité ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm